salaamaaleykum wa rahmatullah waa mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte lool man la seen mbokk seen xarit euh, professeur Galaye Ndiaye Bruxelles euh, ñu bari article bi ma mujj bind jëmale ko ci actualité politik bi. Euh, ñu bari comme ci arab laa ko bind ñu bari euh, bi ñu ko déggee dañoo sàkku ci man ma résumé leen article bi euh, ci wolof xam naa dina jafe lool mais dama ci indi rekk tomb xëy na yi ci ëpp solo xëy na bi ci njëkk rek mooy wane ni Pastef amul plan B pla à ah, rek la am loolu nak il faut que nga xam jëm joju ñuy wax Ousmane Sonko deglu ay discoursam xam taxawayam pour nga mëna njangat bu mel nona parce que ba ci biir parti bi sax da ngay dégg ñuy wax plan B te plan B amul plan A rek moo fi ne ndax ki nga xamee ni moo jëmmal projet bi di président Ousmane Sonko moom dafa yàgg wax ni jëmmam ji du mooy li am solo li am solo mooy projet bi réussir ak ci kum mën a jaare ba réussir rek projet bi mooy li am solo mais jëmm yi amuñu solo ba ci jëmmam ji moom kon Pastef dafa mel ne moom plan A rek la am plan A mooy lan mooy jële fi nguur gi fi ne nii jële fi système bu yàqu bi jële fi gis-gis bii nga xamee ni moo reñee ci Sénégal depuis 1960 ba léegi gis-gis boobu ci wàllu politique gis-gis boobu ci wàllu yorinu askan wi gis-gis boobu ci wàllu développé réew mi mooy gis-gis boo xamee ni benn clan la benn groupe boo xamee ni ñooy pàccoo réew mi boobu ak léegi jël alalu Sénégal délloo ko waa Sénégal Sénégal dëkk la boo xamee ni tey dafa waroon mel ni Dubaï mel ne yeneen réew yi nga xamee ni tey jii ci la ñuy xëntewoo dem di fa gis naataange di fa gis lépp loo xamee ni day jëmmal ak naataange ci am réew Sénégal foofu la toll waaye malheureusement benn groupe de personnes boo xamee ni seeni bàyyi la woon ak seeni doom ñoo continuer di pàccoo réew mi kon li ma bëgg wax rek foofu mooy euh, benn plan moo fi nekk muy plan A te loolu ku yàgg déglu Ousmane Sonko ding nga ko ci dégg ni moom jëmmam ji amul solo li am solo mooy xalaat yi muy projet bi muy idi yi moo tax nga gis ni bi ñu mbir mi yeggee fii ci wàllu procès yi nga xamee ni ñu ngi ko teg ci kaw ndodd Ousmane Sonko booba ak léegi bi ñu yeggsee fii ñu bëri dañoo defe ni plan B moo génn fekk plan B génnul plan A rek moo fi nekk ndax projet moo fi nekk projet bi lañ jiital état bi nag fi mu juumee maanaam tarxiis fa ay yoon yoon mooy état bi dafa xamoon ni Pastef projet la du nit état bi jël énergie jël dooleem jël alalam jël justice jël armée jël police jël gendarme am gendarmerie jël ay agent secret jël média jël ay journaliste corrompu jël léppam def ko ci benn jëmm muy Ousmane Sonko te ñoom xamuñu ni jëmm ji du mooy li am solo li am solo mooy projet bi moo tax bi ñu yegsee fii ba ci cëppaandaw gi ñu gis ni ndekete jëmm ji ci boppam xamal na leen ni moom du mooy ki am solo moo tax fi mu toll nii ngeen di gis li ngeen di gis lépp muy xew actuellement ni réew mi dafa jaxasoo parce que parti bi nekk au pouvoir dafa jaxasoo pëcc fa am parce que ñoom dañoo jàppoon ni. mbir mi mooy éliminer Ousmane Sonko maanaam mosuñoo xalaat ni parti bi mooy li am solo loo xamee ni moom projet bi mooy li am solo moo tax ñoom ñu jaar ci li ñuy tudde ay checliat maanaam forme yi ci la ñu nekkoon mais nekkuñu dans le fond ba ñu tasee parti bi ñu tas nañ parti bi xamuñu ni du ay kayit lu ñu tënk ab parti mais idée la Pastef ay xalaat la Pastef gëm-gëm la Pastef mbir la moo xamee ni ku ko dundul xamuloo ko xamoo lan moo nekk ci bopp xale yi ak gén ak nouvelle génération bi nga yaakaar ni ci ay kayit ak yooyu mën nga koo tas da ngay nax sa bopp looloo tax état bi fi mu fakastaloo mooy fi mu jàppe ni mbir mi c'est l'administratif tas parti tëj le leader li mu waroon a jéem a fay mooy projet bi projet bi nga xamee ni dugg na ci xel doomu aadama yi mu def un travail de déconstruction jéem a fay projet bi donte sax état bi jéem na ci ndax yónnee na ay journaliste corrompus plateau yeeg yëpp waaye foofu la waroon a jël énergie am yëpp def ko ca kon état bi fi mu lajjee mooy jël énergie jël doolem lépp def ko ci benn nit fekk nit kooku ci boppam xam la ne ni moom jëmmam ji du mooy li am solo li am solo mooy projet bi état bi jàpp ni lépp c'est l'administration tas parti Guinée, ay décret xamul ni li ëpp solo moy xalaat yi nekk ci bop jeunesse bi Fait un travail de déconstruction amout ils vont jamais arriver te japp jamais ils vont y arriver pour déconstruire li nga xamé ni jëmbat nañ ko ci xelu do jeunesse bi nga jeunesse bu yeewu la jeunesse bu am conscience ci ëllëgam la kon lii xew nii buñ ko jànkate yëpp dañuy gis ni en fait ñi ñuy tudde njuumay njuuma politique yi mooy waa PDS PS APR yi nga xamee ni parti yu yàgg yi APR sax yàggu parti yu yàgg yi nga xamee ni cadre yi fi daan gis ñu naan ñii ay juuma politique lañ tey ji nañu mel ne Ousmane Sonko nga xam ne bi mu duggee ci langue politique bi yàggut mais wan na tey ji Sénégal wann àdduna bi maa ngi wax ci article bi sax ni bu Machiavelli ñëwoon ci tey ji ñibbi ñëwaat ci kaw suuf yàlla dugalaat ci moom ruu mu ñëwaat dina jàng politique ci Ousmane Sonko ndax moom dafa daan wax ni la fin justifie le les Ousmane Sonko li mu jàngalee mooy politik ak éthique ak morale Ousmane Sonko li mu jàngale mooy def politique te doo njuuj doo def njuuj njaaj mooy yee aw askan xool benn idéal nga jëmale leen fa yow sa bopp nga incarné idéal bopp loolu mooy li nga xam ni mooy li am solo moo tax Ousmane Sonko ku koy xeeb ci wàllu politique mooy xamu dara parce que ñu bëri dañ koy xoole comme un jeune xale et cetera mais li mu yor ci ay xalaat ci wàllu politique ndax boo xoolee mbir mi ba mu tàmbalee booba ak léegi ndimbalal sunu borom mi ngi ci lu leer nañ waaye da ngay gis ay stratégie politique yoo xam ne mi ngi koy teg digganteem ak nguur lu toll ne nguur lu toll ne état ak dooleem ak léppam mais chaque fois que Ousmane Sonko posé un acte jaxasoo ak pëccxoo am ci kàmb gi loolu nag loo am solo la loo xamee ni njàngat la moo tax ma xam ne Ousmane Sonko c'est un cas d'école cas d'école la maanaam lu ñu war a jàngale la ci école yi ci politique ci parti d'opposition ci idéal waaye tamit ci li ñuy le l'éveil euh, euh, politique donc de la jeunesse africaine Lolu am solo la luma ta bàyyi xel la lii ci gàttal moo nekkoon tënku article bi maa ngi leen di nuyu leen ziar asalaamaaleykum